Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi àndaat ak yéen seen émission bii ñu tuddee daarul maarif al islaamiya muy daara ji nekk ci jumaa ji di ko ànd ak euh, télé bi nekk ci biir jumaa ji CMT ci taxawaayu daayira muxaddimatul xidma di teg siyaar beeg ñaan yi ci kilifa gu tàdd gi sëriñ xaafiya mu tegal ko ci mboolem mboolem mbam membre yi di sant it ak gërëm ñu yore banqaas bi seen Abdu Xaadir ak mbooleem ñu ànd liggéey bi di jéglu baax ci kàddu yi eh, kon ngeen ci ànd ak seen mbokk Saalixu Jaxate di kenn ci fii ci waa Daarul Maarif eh, ñi seen ñaareelu bind tey ci jawharu nafis fii lañ war a tàmbalee wa min surutiha bokk na ci ay sartam moom tuub nadaamatun rëccu xalaamaa ci lépp loo xam ne faatahoo faatoon na ko mooy raw na ko minal maasi ca moy ya musjalaa yuñ boyal mooy yu mën di doon waniyatun ak yéene fii ma baqiyee ca la des na minal umri ca dund ba adamu awdihi adamu awdihi adama ñàkk delloom li kulima ñi lépp loo xam ne yaduru dana lor waan yakuna mu nekk taarikan asiyan yi di aji bàyyi ji mooy in kaana dem nekkoon na asiyan di aji mooy bilaa tawaani ci dul wala loxo di ñeel taaxiirun ak yeexe aw sabrun wala ak muñu li tawbati ñeel tuub wala yoqur bu di waxit naan asbiru naa muñ xataa hadaani ba gindi ma saaxibul xufaari boroomu njéggale ga te mooy suñu boroom mu ne fa inna saa ngir naka lii xalaamatul xislaani màndargam toroxtaangi la maxa saqaawati ànd ak texee di wa raynul xal bi ak muur gi sub xol maanaam lënk ñu xol inni naka man sëriñ Tuubaa a'uuzu maa ngi muslu minhumaa ci ñoom ñaar béréb bi ci sama borom tey ñu ñëwaat kon ak bunt bu am solo ci bunt bunti téere bi muy tuub mu muraad li ci indi nag lu ama amati solo mu ne mu ne muy sarti tuubi bokk na ci sarti tuubi ginnaaw bi ngeen xamee ne ba ci njëkk mooy al ixlaas ak al xabul eh, sellal la ngay def ci yàlla rek tax ak yàlla defal la tawféex yi nga man koo def bokk na ci sart ya nga daal di réccu eh, ci lépp loo xam ne defoon ngoo ko ci ak mooy yàlla ak gum man di doon nag li wax naan danaa ko bàyyee ni rek wala bu ma ko bàyyee dama cee dellu déedéet faaw rek nga réccu daal koy bàyyi bu ko defee daal rek ñu tàmbalee rafet njort ci yow bokk na ci sarti tuub yee it nga yéene ci ne li des ci sab dund fasatoo ko yéenee def lépp loo xam ne dalay lor ci yu mel nii bokk na ci sarti tuub it waxtu wa nga xam ne ca nga tàmbalee tuub ca nga yégee ne da ngay tuub ca saasa lam la fekkoon nga koy def nga bëgg koo tuub nga daal di cay dellu ginnaaw ca saasa maanaam ca jamono yooyee rek ca tàng-tàng ba Eh, bu fekkee ne moom aji mooy la woon bokk na ci sarti tuub bu bëggee tuub mu bañ naan naa xaar ba man ko rek damay gone wala bu ma demee ba ca kanam laa koy gën a jàkku déedéet bu bu di wax loolu mukk naa xaar ba yàlla baaxal na rek yàllaay ki nga xam ne ku ko soob mu baaxal la nga baax ku ab safaan soob ci moom it soob ci moom it nga mel noona mu ne loolu màndarga màndarga yi nit ku yàlla nar toroxal la nit ku na nar a ñàkk sens maanaam ku natu tàbbi àjjana wala xiyaasu billah mandarga yit la ci wane ne nit ki xolam bal raana ala xulubihim ma kaanu yaktibun xolam àgg na foo xam ne ci tilimi xol doy na waar lool moo tax sëriñ bi sax di moslu ci e, ak texee muur gisub xol ñu nit ñoo ngi ci moslu suñu borom musal ñu ci moo tax alxuraan toujours mu wax illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha fa ulaayika yubaddilu llaahu sayyiaatihim xasanaat bi mu tuddee kabaayir yoo yooyee muy rey bakkan ak bokkaale ak yeni mel dajaa teg daan ne ba mu des ki nga xam ne dafa def istisna foofu deltu na ci ginnaaw tuub kooku yàlla day xool na ay bakkaaram diise woon mu jox ko lu ñu toll ci aw yiw doog ko jéggal waxeekataa nekk noonu bokk na ci sarti tuubit raddul mazalimi delloo tooñaange jàmmihim wala seen nee na yoo def na ko lim min surutiha ci ay sartam moom tuub indal mu teeñ fas aji topp ja hmm. ne bokk na ci sartay tuub bokk na ci sartay tuub delloo tooñaange eh, li annahu na ko moom delloo tooñaange kat fardun farata la faman tarakahu ku bàyyi na ko mu xafifan mbir moomu muy aji woyefal fa xadaxa saa mooy na rabahu boromam mu ne bokk na ci sart yi euh, delloo tooñaange nit bu fekkee ne da ko tooñoon boo jógee jëm ci tuub faaw nga delloo tooñaange am na addis boo xam ne mi ngi ci musnad imam imam ahmed naka noonu euh, Baxawi andi na ko ak yu baree bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci wax ne man kaanat lahu maslamatun li aqihi min xirdihi aw sayin falyataxallalhu minhu lyawma qabla an laa yakuna dirhamun wala dinaarun wala dirham ba ni addis bi jeexee wax naan képp koo xam ne amoon na ak tooñaa ngi mooy addis Abu bu siiw boobu am na lum tooñoon mbokkum jullitam a mbokkam am na lum tooñoon am mbokkam donte lam ko tooñoon daa aju ci deram wala mu aju ci laneen da ko gis léegi mu ngi ci alal ak yi ni mel na fexe num fecc ko loolee doxoon ci digganteem ak kooku bala muy àgg ci bis boo xam ne bala muy àgg ci bis boo xam ne ay dërëm ak i dinaar amu fa lu dul ay xasanaat ak ay sayaat lu alxasa ay xasanaat ak ay sayaat mm-hmm. eh, moo tax sëriñ bi daal bokk na ci sarti tuub raddul masaari mi delloo tooñaa ngi jëme mbooloo seen ne yoxat def na ko lim min suróotihaa mu bokk ci sarti tuub indal mu tiy fas aju topp ja lenn hu nag moom fardun farata la fa man tara ku bàyyi na ko mu xafifan daji woyofal ko faqad mooy na malikuhu boromam bokk na ci sarti tub kon delloo tooñaange nee na farata la képp koo xam ne bàyyi na delloo tooñaange googee ba pare jàpp ne lim bàyyi du dara mu ne xam naa ne dañ koy tere sax waaye mu ne eh, koo xam ne bàyyi na ko ba pare daat koy woyofal kooku mooy na boromam moom tooñaange moomu nag mu ñëw ci daal ne sumal masaali mu topp tooñaange ata dikk na xismayin di ñaari xaaj am waalan ci alal axaraadan ak dar bi xayr may ni ci lu fer fen ah, mu ne delloo tooñaange nag ñaari xaaj la tooñ nit ki ci alal mën naa nekk tooñ nit ki ci deram teg ci deram loo xam ne lu teguwut la loolu nag ku mu daloon nooy def fal yardu dina delloo alam wala alal ja lil arbaa bi ñeel seeni boroom in wujudoon dem fekkeef na addahra jamono bi lertiyaa bi ci lu sikk li nga tooñoon bu fekkee ne mi ngi dund loolu yomb naa lijjanti da ngay dem jël alal jang ko loon nga delloo ko bu fekkee da nga ko tooñoon ci wàllu alal suma isaalam yooyu jud topp ndem fekkee fut fal yar dinay delloo alal ja li waari sii moo doon seen bila taraddudi ci lul ak deng-deng suma isaalam yooyu jud topp ndem fekkee fut fa fekkee fu ko fa sadaxaa mu saraxee xanum ci ñoom bi xaa ci alal joojee mu tooñoon lisaanaka nii xakkaa la ko nettalee man xaqaxaa man kaa xam ne xaqaxaa dëggal la euh, bu fekkee ne amee loon alal dunduñu waaye ña ko waroon a doon ña nga fa mu jël alal yi yóbbu ko si ña ko waroon a doon dond wax leen ne lii kat maa ko loon seen baay wala maa ko amee loon seen doom wala kam ko amee daal loon daal lam doon ca ñoom euh, bu fekkee ne ñooñu nekkuñu fa nag mu jël alal ji da dal leen koy saraxeel yéene leen yool bi mhm. yéene leen yool bi mu ne nii daal ki nga xam ne def na taxqiq bu baax ci xam-xamu diine noonu la ko nettle moom Abdurahman al Akhdari ak mboolem ñu ko jiitu ci worom xam-xam yi noonu la ñu nettalee noonu lañ nettalee addis boobu noonu lañ nettalee wax jooju ci aju ci wàllu tuub wa yastaxillu na daganlu kulla kulla xerdin bépp der boo xam ne akala lekkoon na bi xiibatin ci jëw aw xasfin wala jiiñ aw sadmin wala ŋàññi jalaa feeñ na inkaana nem nekk na xaadiran di aji teew mu ne képp koo xam ne daa ameeloon mbokkum jullitam dara daa mbokk ameeloon mbokkum doomu aadamam dara ci àq yoo xam ne daa aju ci wàllu der comme mi ngi fi rek fal yataxallalhu minhu l yawma yi ñu doon wax léegi addis bi wax ko da gaaw dem fexe noo lijjantee sa diggante ak moom ba la ñuy àgg ci bis boo xam ne ni ko addis bi waxee léegi laa dirham wala dinaar wala dinaar illa al xasanaat wa sayiat foofa dërëm ak i dinaar yoo mën a rectifier say tooñaa ngi amu fa loolu ay ay xasanaat yoo amoon man koo faye wala ay sayiat yu amoon ñu mën la koo jox moo tax mu ne bu fekkee ne da ko koo tooñoon nit ki nag jëw ko wala nga jiiñ ko teg ci dërëm lu ñaaw wala nga ŋàññoon ko fekkee ki nga defoon loolu ma nga fa lii lay xam doo sukuru da dem rek wax ko ko jéglu sa diggante moom yàlla mën naa def mu jéggal la bu fekkee nekku fi nag wa amaa in faqid ndaal nem ñàkkeef na ko faliku shiran nay baril xayran aw yiw laxaaloo ndaxte moom ya ji dana am say an dara yu addi dana joxe xàq xàq xàq kullihim àqi képp ci ñoom bi ci moom mustaxfiran muy mustaxfiran muy aji jéggalu bi ci moom wala yar yu te yaakaar xaf wa rabbihi njéggalu bu fekkee ne ñam amee loon ñi ngi fi lillahi alhamdu wa sukur bu fekkee nekkuñu fi nag ah mu ne e, nay baril di jël aw yiw maanaam na leen di saraxeel noonu mu ñëwee ci addis ba yonente bi alayhi salatu ci moom mu saraxeel ko ay kilifaam yu jiitu yi yonente bi nangul ko ko mu laaj lan moo ci gën mu ne ko ndox sax yul la ko wax ndox ba ci ndox sax mooy jënd di ko saraxee ndaxte yooyu mën naa nekk yiwu diis woo xam ne ëllëg si biir la nga ameeloon ñooñu da ca mën a fay ba dese da ca mën a fay ba dese bi mu noppee ci bunt boobu it eh, ci poñ boobu di tuub mu daal di dugg ci beneen poñ it muy aju ci làmmiñ daane woo war na mu kàllaf it ansuhu ak wattoom allisaana làmmiñ wa min faxsaa yi ci bu ci ñaawteef yi wa min xabiixil xawli ak aji bon ji wax wal miraay ak werante mu ne mu mu nekk it war nay téye làmmiñam ci wax ju ñaaw ak ju doon rawatina nag lu ñuy tudde saaga mu ne ak wax ju bon wax ju bon ak werante yii moom nit ku nekk jullit bu nekk rawatina ab taalibe war nay wattu làmmiñam ci yooyu mu tàmbalee nag teqantal yooyu mu tuddoon ci béy wenn béy di woowu daane xaqiqatul xawli dëgg-dëggi wax alxabihi jadi bon kulluma mooy jëpp wax joo xam ne takkoonu da nga nekk yow saaxaaya di boroomu kersawu minu ci wax jooyee faxle maa xamal wa jawo soo dagan na nag moom wax ju bon maanaam baat bu ñaaw tasrixahu ak bérel ak bérélam xindal baliit fa aji gàtt xel ja inkaar ne nem nekk na laayaf xamu den muy dégg talwixan ak junj yu fit dana ko jariñ xaqiqatul mira yi dëgg-dëgg werante xi man fas ka nga xam ne dara xam na juhuudu xaqin mooy weddi dëgg baxadama qad zahara ginnaaw ba feeñ na wa daf ko akuk jañam moom dëgg bi baat lin ci ci neen wa baasin ak ay likur yi ngir sib xafdil jaahi suufeel daraja xinda naasi fa nit ña mu ne e, kon yooyu doomu aadama bu nekk war na koo moytu ba ci njëkk mooy wax wax ju juunoo ci làmmiñam war na koy moytu bu baax daane wax ju bon nag dëgg-dëgg mooy yëpp wax joo xam ne rek am nga ker sa ci di ko wax rawatina nag ci sa kanamu kilifa sa waajur sa sëriñ sa kilifa rus ngaa wax kàddu kàddu yooyu ca kanamam rek jàppal ne loolu mooy wax ju mu ne wax jooju nag na nga koy moytu moom baat boobu nga xam ne nag daa niru baat bu baat bu juunoo bu ñaaw bu fekkee da ngay wax ak koo xam ne daa gàtt xel nga koy jàngal nga war koo xamal dana dagan nga jaar ca digg baat ba bu fekkee ne boo ko junjee du dégg junj yooyee ñaareel ba muy werante it mu ñëw ci daane werante nag dëgg-dëgg werante rek mooy dëgg gu leer nañ bu feeñ nga bëgg koo weddi waaw bëgg bëgg a dindi ak dëgg daal ci ay neen na ki caaxaan wala nga bëgg koo dindi sax ci aw ay loolu da koy gis lu bari nga gis nit koo xam ne bu demee ba ñàkk argument rek ay xuloo ki saaga ak i werante ak la koy la koy indee mu ne loolu mooy werante nag loolu mooy werante léegi nit ki koy def it bokk na ca lii tax mu koy def mooy di bañ ku suufeel dara jaam bañ daal nga am dëgg ci moom wa min ihanatin ak doyadal eh, aw intihaari wala gëdd li muslimin ñeel ab jullit aw sabbihi wala ŋàññi ko bil xaari ci gàcce wa mislu si kem yi taxwiifu ak ragalloom taxwiifa ak ragalloo fii xayri xaqi sarci ci ludul àqi sarian laa taxifa bul jàng lakinnahu waaye moom nag fil xaddi ci gëtëñ wa taxsiri ak jajji mu jawo lu ñu daganal la xinda fu xoolil xiiri fas kuy tànneef ya bokk na ci yi nga xam ne ba tey sëriñ bi mi ngi koy moytunikuloo ci téere bi ab jullit nga koy jiima doya dal di minimiser nit di ko minimiser wala nga koy gëdd gis nga ab yelwaankat li alquran wax wa ama saaila fala tanhar ab yelwaankat donte jàpp nga ne yaa koy sarax sax waroo koo gëdd wala ngay ŋàññi nit waaw al mustabaani ma xaala fa ala al minhuma ma lam yaxtadda al masluum ko addis ba waxe ñaar ñiy ngàññante di waxante ay ay kàddu yu juunoo am na faneen fu mu naan seytaanaan al mustabaan mu ne ñaar ñiy werante ki ngàññante waxante ay safaan eh, saagante yu ni mel ñaari saytaane lañ ñoom ñaari nee lu ñu wax rek ka njëkk a tàmbali wax ja li fii kañ tooñoon toñeer bi wut ka njëkkoon a tàmbali wax ja moom moomam bàkkaar ba tax mu ne ab julit war na moytu di doyadal ab jullit wala mu koy gëdd wala mu koy ŋàññi wala mu koy def lu ko mën a jural gàcc wala mu koy ragalloo ragalloo goo xam ne dëgg ko fenn dëgg ko fenn ci sariya ci la neen waaw mu ne nag bu fekkee lu mu def la nag islaam tegal ko ay daan ngir ñu war koo gëdd ka xupp ca daan yooyee lu lu waru la moom kenn waxu ko wala ñu war koo jàjji ngir mu deltu ginnaaw ci yooyee muy def loolu moom boroom xam-xam yi nga xam ne boo doon melal boroom xam yi ay gileem wala ay xar na ci am kuy di ràññee ko noonu lañ ràññee ci mbir yooyu mu ne ñoom daganal nañ loolu waxa gisaa nekk nii it alyaminu giñ bi tallaaxi ci ak fase mu xaramun lu ñu araamal la waaye nag walay sa déet araamal googu nag bittifaaxi ci dëppoo waaw mu ne nag eh, eh, di baaxoo rek di giñ naan sama soxna sàngam danaa ko fase wala bu defee sàngam fas baaxoo ko daal baatu fase du lu ñuy du lu ñuy lu ñuy fooyee ci sariya wala baatu goreel ca ba jaam amee loolu lu araam la lu nit war di moytu la araamal gi nag mën na am nee na borom xam-xam yi dëppoo wuñ ci lu ñu la waaye nee na borom xam-xam yi dëppoo wuñ ci li xabari nax yi ngir xibaaru tere ga xani léemi ni ci géñ bi ne ci goreel moo talaaxe ak fase fi tab yi ni ci ber wa man ihtada ku baaxoo wa man ihtada wa man ihtada ku baaxoo na bihaa ci moom ala tartibi ci toftale fi noonu ko moom yëkkun dana nekk saa taadi bi di boroomub yar gis ngir lee sa yaxalifu déet déet muy giñ bi kat talaaxi ci lu mel ne ka fase wala it ak goreel aadatan ci di ko baaxoo si wal fu saaxi lu dul waay jàng ya maanaam kàccoor ya mu ne ndax loolu kat képp koo xam ne baaxoo na ko rek kooku wares na ko yóbbu ci imaam mu teg ko ay daan yuñ ko yar àttekat bi ndax baaxoo yu mel noonu danaa fase sama soxna ak danaa goreel sama jaam sàngam mu ne kàccoor yi rek eh, ñoo ko faral li aadawoo di ko baaxoo wa war na mu kàllaf ba tey ifsuhu ak wattoom basaruhu ak gisam minal xaraam yi ci lu araam laa yanduran rikk bum di xool maa lépp loo xam ne la muy gis dëgganut an yandura mu xool ko kanadari naka xool kanadari naka xool bi nasaratin ci aw xoolin woo xam ne lil muslimin ñeel na ab jullit tuusihi bopp dana ko lor laa waxuma nag li faasixin ñeel aji jàng aw mujrim wala aji tooñ mu ne war na mu kàllaf mu nekk mu wattu ab gisam bañ ci xool lépp loo xam ne dagganut ci moom mu xool ko lu mel ne muy xool ab jullit xoolin woo xam ne baaxul ci moom da ko cay lor moom yàlla natt na ko wala yàlla def na ab dogal ci moom bu xoolee dara sax dara mën na caa jaare aw ay daat cee am wala mu koy xool xool woo xam ne xool wii muy xool keekan ma ngi ko ciy tiidloo ci xoolin wa waaw loolu mu ne mu kàllaf mu nekk war naa wattu ab gisam ci xeeti xoolin yu mel noonu ca loolu moom ñëpp xam nañ ne bokkul sax ci ak nite ba li fi nekk ba li fi nekk nag waajibun aji war la lay ci moom fii ma suriya ca dañu yoonaleef hijraanuhu ak tongoom nasiatan ngir ak laabire li yarjia ngir mu dellu ci tuub waaw bu fekkee ki ngay xool nag daa nekk koo xam ne des koo war a xool di ko xupp da nga jàkkarloog nit mu nar a jël yi fi jàmbur nga koy xool xooliinu bul ko def wala daal mu def aw safaan boo xam ne xooliin wa wala jëflante googu ñuy def ak moom dana tax mu deltu ci ginnaaw kooku moom eh, bu laajee meroog moom sax ci mu bañ a jéggi ñetti fan loolu lépp xeeti laa la yoo xam ne des des caa war a jëflante moom ca noona wa man mu ne ñoom borom xam-xam yi tare nañ an nasara xool li nisaa yi ñeel jigéen al ajnabiyaati ña di jàmbar wakal xas naa yi ak naka waay rafet ya min kulli suuratin ci bépp portale xalal tisaasi ci bànneexu ka amradir jaali naka toñ toyo ngi góor ña faxatar wattul yow miy jàng xaadi yi ba minu bokk na ci nasratun ak xool xalaxti xaarin ci xebeel ci xeebeel kasaana noonu li tax wii fin ngir ragaloo awinti xaari wala gëdd waaw bokk na ci xeeti xool yi nga xam ne ba tey mi ngi koy wattandikuloo ngay xool nit eh, ngay xool nit xool yooyu mu waxoon wala ngay xool soxna soo xam ne dagganut ci yow ngay bànneexu ci moom wala soxna sa di xool-xoolin wu mel noonu ci ay góor ndax xam nañ ne bi aay boobu wàccee waxul waxul lil muminaati yaqdudna min absarihinna laajub sayyidatuna Aïsa boobu mu ne ko waaye ñoom góor ñi nag ñun jigéen ñi eh, ibnu um wax nañ ne boobu al ibnu umu maktum moo ñëwoon ko moom dawul gis mu ne ko waaye yéen da ko gis la ko wax kon niñ koy moytuloo góor noonu lañ koy moytuloo jigéen moo tax mu ne waxambaane xale yu góor yi nga xam dañoo tollu ci seen digg jamono naka noonu it na jigéen ñi moytu rawat na xale yu jigéen ñi den xool xoolu mën a bànneexu ci ñoom wala ngay xool bépp portale am na ñu koy xewal boo demee ñu lay jox ay photo nangam ci ñoo xam ne dafa araam ci ñoom ñuy xool nañu mel wala di xool seenu taar ak yu ni mel yooyu lu mat a moytu la wayet manu dana warlu mooy dana garanté al aynu aji gëtu ji maa lépp loo xam ne xat xeleka alag na ko bi ay nii ci bëtam ya kamaa xataxakaa naka mu ko nett li araisu kilifa ga usjun def na tëj almexyaanu borom bëti meewaan ya xay sustaharaa fu mu fi siiwe bi durri ci lor fu mu siiwe ne ànd naak lor rek des na ko tëj fii man si lixii ca këram ay wattul alxabaraa xibaar ba mu ne loolu moom comme ni ñëwee ci addis ba rek ba mu wéree na yonent bi alayhi salatu wasalaam bi ko kenn di tëru ngir bëgg koo xool suñ boroom xamal ko yonent bi mu yàggal rukkoom ba suñ boroom daal di e, tuur bët posen ba nekkoon ci bëtu kookee loolu it mu ne àtte la boo xam ne ci fuqahaa yi teg nañ ci ne e, ki nga xam ne lu mu xool mu yàqu bu demee ba siiw ci loolu rek des koy tëj këram war wala ñu def ko nuy tax isole ko ba du mën a xoole te dara ba muy yàqu ci ñi nga xam ne nag am nañ matuwaay yi ñu mën a xamee ne kii effectivement mooy ki nga xam ne lu mu xool mu yàqu waaye yaakaar rek ko rek mën naa am ñoom ni ñu ko xamee woon ñoom ci jamonoy borom xam-xam yu mag yi ak jamonoy saxaaba yi du nag léegi ñëpp ko mën a xamee noonu waaye jël nit it jàpp ne moom la rek tax ñu ko ciy criminaliser kooku taxul ñu wax wa war na mukallaf it am ci ak wattoom aljawaariha cëriya albatnu biir lisaanun làmmiñ farjun pay urijlaani ak ñaari tànk xaynaani ak ñaari bët yadaani ak ñaari loxo saabi saabihuha juróom ñaareel ba usnaani ñaari nopp man raxaa koo xam ne sàmmante na la laha ñeel ko xanil eh, maasi ci ak mooy xaasada làq na xasdan ci jublu aj maxaa mboole seen is ngir ku loxo duñ bépp cër min ha ci cër yi xaabarat jàkkaarloona ak baaban bunt mi a niiraani ci buntu sawara ya fii maa ci la nga xam ne xat tabat sax na wa kullu man képp koo xam ne xafisaha wattu na ko laay duxul den mi tabbi baaban bunt minal bibaani ci bunt ya fi maa ci la xol def na ko toxal wa kullu xudwin bépp bépp cër it xadaa mooy nga abadan fawu bihaa ci moom tadxul dana tàbbi def na dana tàbbi bihaa ca moom baabaha buntam ba xaddan ëllëg ah, eh, waaw ah, mu ne kon manees naa taxawani foofu ci buntu ci buntu dërsub tay bi waaw mu ne mu nekk war wattu ay cëri juróom-ñaaram bañ caa mooy war naa téye biiram bum ci tàbbal lu araam lu lu lu lu daganut war naa téye làmmiñam bum ca tudd lu araam rawatina peem moom bum ca def mukk lu araam illa ala aswaajihim aw ma malakat aymaanuhum ñaar yooyu rek lañ ca settee wurijlaani ak ñaari tànkam bu mu ca dox mukk jëm fu araam ñaari bëtam bu mu ci xool mukk lu araam aaya yu baree bari ci benn bu mu doon ci majmuu ne al la ñëw nañ ci day njàng mu njëlbeenu moo tax duñ ci bëgg a sori ñaari loxoom it e, zinaha al batsu la yonent bi wax e, loxo njaaloom mooy laal ci lu làmb ci lu làmb wut juróom-ñaareelu cër ba mooy ñaari noppam mu bañ caa diglu lu diglu wut ci ay xeeti misik ak yu man qaada ila xaynatin yastamicu biha zaba llaahu l aanak fi usnahi yowm alxiyaama ñaari noppam mu cay diglu lu digluwut yooyu yëpp war na koy moytu mu ne koo xam ne nag téye na boppam ay cëram ci juróom-ñaar yi mbooleem luy ak jub nag bu doon lu ñuy jam na xam ne jot na ko waaye cër boo xam ne nag na jàpp ne cër yi juróom-ñaar la bunt sawara yi di juróom-ñaar cër boo mooy rek booy mooy rek mën naa dem ba buntu bam jàkkaar lool di buntam ca bunt sawara ya képp koo xam ne wattu na ay cëram nag boo moyu ci benn yàlla mën na koo tëjal buntu bam jàkkaar lool di buntu mooy ko kon xam naa ne foofu lañuy ñuy taxawane ak yéen ci seen dërsub ñaareel bi incha allahu rabbi ba jeneen jëm jëmmi jamono ñu ñëwaat ci ay leeral ak ci beneen dërs bi ci topp yaa rabbi jaxalil muridina maa fi hisnika la asina wa samlaj maa ñu ngi sant bu baax sëñ Abdu Xaadir ak mbooleem ñi àndaloon liggéey bi ñëpp jaa ngeen jëf wajal binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi